له الحمد وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام دائمين متلازمين على سر الوجود سيد بني عدنان ينبوع الحكمة والعرفان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الذين سادوا الخليفة عجما وعربا ورضي الله عن تاج العارفين وممد كل أولياء الرحمن صاحب الختم والكتم مولانا أحمد بن محمد التيجان السالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi daje ci barab bu tedd bi nga xam ni ëpp leer la ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jéggalu suñu sëriñ yi toog ñuy taxaw ci seen kanam di wax waaye ñun ñépp jàng nañu al imtisaaru bil awaamiri laa yadurru moo bu ma gaa yi ne jógal rek ma ni déedéet ndax fii indiwuma fi sama bopp du ma fi yëkkati sama bopp te ñii njabootu mam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu wax naa leen ko fu bari nee naa leen tay waaye ñun suñu maam tafsir Abdourahmane Gaye seen maam ba mu ko bindee lijaasa daa ci mi xam koo xam ni maamam bu bindee sa maam mbind ma lay xool bi xam boo jàkkaarloog moom di riposte mën naa am daa yokku sa pikiir rek waaye du yow ñu nuyu bu baax fa tabarakallahu suñu wë suñu sëriñ sëriñ Moulay Abdoul Aziz Habib ibnu mam Cheikhul Haaji Malik radiyallahu taala anhuma nuyu sëriñ Mouhamadul Mansour si Jamil ñaanal ko yàlla yàlla ko yàlla may wér yàlla yàlla yokk fanam nuyu mboolemu usra maam Seydi Malick bi ñu fi fekk waxtaan wi fukki minute ak juróom moom lay diire ndax cinq heures day jot te ñii boo amee ñu jafe daga leen di sakkanal waruñu fi yàgg li ñuy waxtaane ñaari wayu xilaasu dahab la lan moo ciy dolleeku li sëriñ bi tijji te man xam naa ni njaboote ak bëgg njabootam moo waral dugg ci waaye mënoon na ci dugg ñu jànge ci moom mooy lan al iman bi mu wax nee na is li nga xam ni mooy tarbiya muy éducation bi ñuy séentu ëllëg li ko mën a régler mooy al iman ngëm xam nga lu tax mooy ci biir néegam bu fekkente ni amul imaan yore internet am bu yore internet am réseau bu doy am ay machine ay appareil yu sophistiqué bu jiitalul ni fii mu tëju suñu borom a ngi fi lu ko neex mu wax lu ko neex mu def te al iman bi ñu laajee lan mooy iman dañu ni am nutqu fi i'tiqad fi qalbi nutqu bil lisan amalun bil jawarih sëriñ bee ko tijji lan mooy ngëm yàlla ngëm yàlla mooy lan loo xam ni ci xol lay ne dañ koy fas innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadakum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun sadaqa allahu alazim suñu borom ni ñi ngeen di xàmmeewee ngëm ñi gëm ñu ni ah pour ngeen tester seen ngëm ndax mu ngi fi am nekkatu fi ñu ngeen koy xamee ñu ne ah mu ne bu ñu tuddee baatu allah muy yàlla day am looy yëg est ce que yëg-yëg boobu mu ngi ci ñun tey baal ma am nañu ko dese waaye bareetul de ñun léegi ay air moo ñuy daaneel fi mu ne bu ñu fi nekkoon naan allah allah allah allah kenn du daal waaye boo jëlee eeru Tiwaawan baa nga jël eeru Tuuba baa bu Njaasaan nga gis gaa yi tàmbalee daalu kon ndekete du baax bi ñun léeg-léeg moo ñuy daaneel waaye eer bi moo ñuy daaneel suñu borom ne innama almuminuuna alladina ida dukira allahu waliyat qulubuhum kon i'tiqaad fi lqalbi la xol bi moo koy fas bu ñaareel bi ban la sëriñ bi wax na ko léegi al iman bu ñu ko waxee mooy lan nutq bi lisaan làmmiñ daf koy tudd gaa yi ku gëm yàlla am na loo war a wax am na loo warul wax wax ji bari na de Sénégal lu ne koy wax nee naa Sénégal bu doonoon réew mu ñëpp muuma mooy gën a avancé ci réew yi parce que wax moo ñuy tarbiya da ngay def sa sax mu jaar yoon ñu topp la di wax ba nga gis sa bopp ca topp la nag bu ñëpp muuma woon ba kenn gisoo muumay Sénégal sax dañoo bari wax النطق باللسان نبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يرتمنيه كو قم يالا قم اسمه جبا deel wax lu baax boo waxee lu baax ba pare noppil dem naa benn gàmmu baal leen ba ndax waxtu wi laay jëkkanteel gàmmu ba génn dugg ci oto bi di ñibbi damay bañ a wax dëkk bi boo ko di xam kan la oto bi ma mu ngi am ku jigéen mu ngi laal sama baat bi naan oh mu ngi nii de baat bi de comme suukar <laughs> loolu lu ëpp benn waay def dama dem benn gaaw benn waay ma di jooy naan ma baal ma ab ah, ma ma ko lan la mu ne ma xam na ni adduna bi yow laa ci gën woon a bañ. billaahi ku sincère ma ni ko ah mu ni ma tolloon nañ jamono yoo xam ne bu ma daje woon ak yow man naa laa rey ngir bañ mu ni ma waaye léegi macha allah ma ni ko loo xew loo ma bañee woon mu ni ma parce que sama jabar bu la daan léegi sa jabar buy béy seetaan di jooy doo ko nax léegi dañ ma ciy bañ man ñëw xaw ma na xaw ma sa jabar buy jàppee télé bi nar caa jooy nga sapé ma ko waaye loo ma bañee mu ni ma loolu laa mën wóor a si kor wa amalun fi yàlla nekkoon yàlla ne law kaana fihima alihatun illa allahu lafasadataa fa subhana allahi rabbil arsi amma yasifun la yusalu amma yafalu wa hum yusalun am ittaxadu min dunihi aliha qul hatu burhanakum hada dikru man ma'i wa dikru man qablihi bal aktharuhum la ya'lamun alhaqqa fahum mu'ridun sadaqa allahu alazim yàlla ne xam leen ni ñaari yàlla bu amoon diggante asamaan ak suuf day na de xam nga lu ko lu bari coow li xam ngeen ko man kay bàyyi ñu bàyyi ñu ñëw rek ku bëgg ñëw bàyyi ñu ñëw waaw kay xam man gàmm bu ma nekkee ci biiri góor kese rek daa rek sama xel da dul dal nee naa firi kat yi seex waa ci gàmm laa sëriñ bi dina waaw ba bàyyi ñu ñëw rek maa xam ne bàyyi ñu ñëw rek yàlla yàlla fayal mais bàyyi ñu ñëw rek. danaa leen firi kat bu te woy foofu saraxu góor ci sama sa daanu bi dañuy bàyyi ba nga ñàkk ñu doog a tàmbalee saraxe jigéen ñi nag dañuy ñëw saraxe may koo waxu dara mani al imaanu billahi mooy benn porte bi benn ponk bi wa malaayikati yi da ngay gëm ni yàlla am na ay ndawam yoo xam ni du ñu lekk du ñu naan mu ngi leen bind ci leer ñooñu ñooy malaaka yi jërëjëf si Malick si kenn du saraxee nii gàmmu de ñii saraxe dañu koy wecciku yu ndaw di ko joxe par benn benn mais yu mag yi nga boolee ndoo ko joxee ndoo ko loolu mooy wane ne da nga ko joxe ngir yàlla yàlla yàlla boobu yu fële ñaga waxal ah. tey waxal tey ah ajakal tuum si jërëjëf si Malick wallaay dinaa la toog ci waat waaw kay waaw kay ma maa ngi ci de maa ngi ci ma dem de waxtu bi tax de ah. li xale yi jàng laay firi de li sëriñ bi li sëriñ bi tijji muy al iman ngëm ngëm da ngay gëm ni suñu borom am nañu mu bind mani mani Sénégal neexatul waxtaane laa ni loo wax ñu ne diw lay waxal. waaye nañu wax rek te yàlla tax yàlla bu leen ko ñàkk a si xoola gars yi bàyyi leen ma taxaw fii rek moo gën a jege ah voilà fi baax na de am ah, pivoté leen nii rek bàyyi ma fii rek dinaay gis ñii fi baax am nañu yàlla bind ñoo xam ne ay malaaka lañu mani Sénégal li waral ni xatul waxe Cheikh Cheikh loo wax ñu ni am na ku muy waxal mani gars yi nañu bàyyi nañu bàyyi nañu bàyyi taw bi gi malaaka kenn du ko gis tanazzalul malaayikatu warruuhu fiihaa bi idni rabbihim waaye du jëmm jooy gis déedéet malaaka mi ñuy gis malakul mawti la qul yatawaffaakum malakul mawti llazii wukkila bikum summa ilaa rabbikum turja'uuna malakul mawti rek la nit di gis te bu ko gisee da koy rey moom bala may taamu ngay dem naan gis naa malaaka moom boo koy gis da lay rey. yàlla nañ ko yéex a gis yàlla waaye kon ñu ko bañ a gis wa kutubihi mani li sëriñ bi tëjee mooy da ngay gëm téere yi gëm ni yàlla wàcce na cent quatre téere mu jël cent barke bi ci cent def ko ci quatre muy tawreet linjiil zabuur waaye yàlla jël na barke bi ci tawreet ak linjiil ak zabuur def ko ci biir al alquran wa yàlla jël na barke bi ci biir alquran def ko ci fatiha waaye yàlla jël na barke bi na ci fatiha def ko ci basmala waaye yàlla jël na barke bi ci basmala def ko ci tomb gi ci baabi dañ koy gëm. sëriñ boo nee gëm nga alxuraan dinañ ko nangu. wax naa ni dama bëgg alxuraan dama gëm alxuraan nga bàyyi fukki doom bi ngay dee ñu tas kaamil ni la ko wàcceel sa benn doom mënu la jël tukki boo nee bëgg nga ko du mu ne bu ñett amoon ñett am ñett am te ñett amul bu ñett amoon ñett du am cheikh ku ne bu ma fekke woon jamono yonent bi bi muy xare dinaa ko xarele ñu nodd ci jàkka ji demoo julli ji boo fekke woon xare doo xare dem jàkkaa gën a yomb julli ji dem jàkkaa gën a yomb xare ji ku ne bu ma dundoon ak sama taawu sama baay dinaa ko teral dund ak sa taawu baay teraloo ko boo dundoon sa baay doo ko teral waaye ku ne bu ma dellu woon di ndaw dinaa jàngi alxuraan am doom ju toll ci jàngi alxuraan yóbbuwoo delluwul du ndaw doo jàng nga jël timlu xale yi def ci alquran nga xam ne afdalu maa yutlaa wa maa yuqaalu ma ni coow lee bari coow lee bari waaye alquran gaa yi xam nañ ni moo fi ne de fi mu ne léegi kaan yi day dox dans quelques jours rek suñu marché yi tàmbali parce que gaa yi fi mu ne ñu ngi xëccoo njiital réew mi ñi bëgg a falu ñépp ñu bari dinañu wàcce lu kaamil ndax xam nañu mooy régler problème bi bu ko defee sama classe bi dañuy doxale jamono yooyu ndax boo wàcceel kaamil rek am loo fa jële ñi nga xam ne dañ ko def métier sama bopp nag laay jël misaal am ma ni benn waaye dani ma dani ma dooma jàngal ñeent fukki yaasin ak benn jamono ji ko fi maam Abdou diglee te ab député la woon ma ni ko ñeent fukki yaasin ak benn loo mu ne ma non boo paree rek ma kii ma ne ko non danga may jox ñeent fukki junni ak benn mu ne ma yaasin rek junni ma ne ko yow yaasin du rek sëkk am na fukki doom kenn mënu ci yaasin ba nga jël si ma kon nga gëm téere yi mais nga gëm ni lépp a ngi ci alxuraan wa rusuli yi nga gëm yonent yi ma ni ab julit laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli julit ni mu gëmee risaalat yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu lay gëmee risaalat yonent yàlla Isa ak bu Moussa ak ña ca def wal yawmil axir nga gëm nga gëm bis bu mujj ba gëm ni am na bis boo xam ni non seulement dinañ la yor bàmmeel waaye am nga bis boo xamee ni suñu borom a nga daan ci bis booba fa ida jaat saaxa yawma yafiru almaru min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yugniihi wujuhun yawma idin musfira daahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idin alayha qadara tarhaquha qatara ulaika hum alkafaratu alfajara waaye ñaari tur ba am wasiqa alladina kafaru ila jahannama zumara hatta ida jaauha futtihat abwaabuha wa qala lahum xazanatuha alam yaatikum rusulun minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum wa yundirunakum liqaa يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين دلدل قرب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صنع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 jaaw bu rafet ba du fi xëj sayyidil mursalina adil baraya bu ñu laajee kan la ki nga xam ni rakkam ja maam Habiba jàkkaarloog moom wax ñu mooy kan maam Habib waxal mu joxañ ko fa baxin baxin يا سيدي وملاذنا من كان حاتم عصره والباري عجبا ببدعة مالك وإمامنا نعم الفتى من حاد كل فخار لله وأنت وليد مالك شيخنا ذاك الذي هو عمدة الأخيار سيدي مرسلين للبرايا من شغل على بلد الضباغ ليه ما يقول إيمان ما يقول إيمان gëm yonent yi gëm bis bu wuti mu muy yomal qiyaam wal qadari nga gëm dogal mooy li xale yi jàng gis nga yàlla noppi na ca la muy dogal ñu yore nguur gi nañu xam ne bu yàlla nee jeex na day jeex waaye ñi yoragul it nañu xam ne bu yàlla nee yoraguñu du ñu yoragum moo tax na ku ne gëm yàlla ñu yor nañu gëm yàlla ñu yorul nañu gëm yàlla nañu def li ñu war a def li des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla xale yi wax nañ ko yàlla yàllaay joxe nguur moo koy jox ko mooy buuru buur yi moom yàlla mooy jox nguur ku ko neex moo koy nangu ci ku ko neex kon ñii mu jox yàlla leen ko joxoon ci moment boo xam ni mën na am yaakaaruñu ko woon ci période boobu waaye moo leen ko jox kenn manu ci dara ko bëggee nangu moom yàlla la koy nangu te période boobu kenn du ci man dara ñaaray am mu nangu ko nga rafet ci am tagg bu rafet baa nga ñaaw ci mu nangu ko nga am way bu ñaaw waaye bu nee da koy nangu da koy nangu waaye yow mi soxla nguur te jotagoo ci xamal ni suñu boroom a yor nguur la ko jox saa yu ko neexee waaye saa yu ko neexul du la ko jox bu góorgóorloo pour jot ci ba ñaawal lu tax nga jot ci kon rafetal mooy alqadar nga gëm dogal mu neex yàlla la keneen dinaa koy faral di nekkal mu naqari yàlla la du keneen naa leen bi dafa ànd ak di wàcc oto bi taalibe bi di ko tëjal buntu bi képp baaraam bi baaraamu sëñ bi dagg di naaj sëñ bi taali sëñ bi ni yàq taali ni ko sëriñ jaru ko baaraam bu dagg dafa jar yàq mu ne ko yow dagg sama baaraam doyatul maanaam yàq nga naan ma jarul yàq donc sa taali bi mu ne ko doo sant yàlla rek te xam gën sëriñ bi ni ko mani yow doo dagg sama baaraam ba pare di ma waar ni taaliba yi tëj leen ko ci kaso bi du ñuy tëj taaliba bi dagg baaraamu sëriñ bi ci kaso bi mu ni gaa yi nee lii mu def merew ma ko de dafa gën rek moo tax mu tëj ma bu gënul woon du ma tëj ñu wax ko sëriñ sëriñ bi bàyyi leen ko baaraamam ba bàyyi leen ko ca kaso ba a dina xam daa gënam gënul di faj baaraamam moom sëriñ di faj baaraamam moom sëriñ ba yàlla dogal baaraam ba wér mu jóg benn fajar di doxal ko bi muy doxal ko ay xale yu góor jàpp ko yeew ba mu dëgër ndekete sëriñ bi fu mu jëm ndekete ndar la jëm lu muy wuti ndar buuru ndar moo soxla benn sarax bu ñu ko digal mu war ko tëmbal ci dexu ndar bi te góor gu mel noonu la ñu ko laaj ñu yóbbu sëriñ bi sëriñ bi bi mu ne tëll ak si sëriñ da a buuru ndar da ko xool rek ni sarax baa daa <laughs> bi laa waaye bi mu woowee ci ko digal sarax bi kooku di xool di xool cër par cër ba gis ne benn baaraam bi dafa mu ne ko kii mënul doon saraxu géej ndax dafa manqué ay cër mu ne ko waaw nu may def nu may def mu ne ko bàyyi bi laa ñu bëri laa la rek sëñ bi bi dégguloon wax ba waaw yow borom moo da ngaa am bi ni ko mais sëriñ yow lan moo fi indi loolu mu ne ko bi nga daggee sama baaraam bi da nga mënoon daa gër billahi daa gër mu ne ko luy di loolu mu nettali ko fi mu jaar ba sobe ndax baaraam bu tag daal ni ko waaye yow bu ñu lay tëj da ni dafa gën lu waral nga ni dafa gën mu ne ko dara gëm yàlla rek sëriñ xaw ma dara waaye dama ni danga ma jàngal ne asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum yaa ma ko jàngal yàlla ne léeg-léeg ngeen bañ mbir fekk moo gën ci yéen léeg-léeg ngeen bëgg mbir fekk gënul ci yéen dama ko gëm nag te gëmoo ko déggal bu way de moo tax sama Seydi Malick radiyallahu taala anhu di wax ca tadabirul xuruba wa xayyir wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna wa imma batil umuri taxibu ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi وفيه رضا من بالمطيع يصيب وما يفعل الأبي الجليل بخلقه فذاك جميل يرتضيه منيب yàlla yàlla fay ma Malaji maa ngi ñëw ci sëriñ bi ndax damay daaneel kàddu sëriñ bi nee na ko lu nga di dafa gën mu ne ko li doon wax ñëw na foo mas di doxante ñooy ànd bu yàlla dogaloon tëjoo woon kon maa lay gunge te maa yow dañu ko loolu bu ñuy jàppee ñun ñaar ñëpp la ñuy jàpp bu ñu àggee sa baaraam dagg sama bos daggul man maay doon sa mu ne ko yàlla mi organisé ba sa baaraam dagg ba nga tëj ma nga dem dellu si war maa tijji ñu ànd war a teggi yoon wañ la jàppee woon ndax ñu bañ nga ne mu def dafa gën kon alxadar doxal ma ko seen maam seen daal ñaari waay rek ngeen may wayal ci xilaasu daal ma ko sëriñ yi ñaan ñu dellu xam nga yan way la maalaaj Maalik ne wa kullu ma li qurayshin dabba qad nataqat bi hamli xayri ibadillahi kull aw ba mu riir nga xam ni dañuy yëg ni tey fii ci Daaru Gaye di Pape Leer fii nga xamee ni mooy dëkku Baay Alhaaji Ahmadou Gaye tey jii ñun ñëpp julli nañ ci rasulillahi ba mu riir moo tax bëgguma sax waykat yi ñoom ñu dëpp micro yi seen gémmiñ déedéet micro bi nii rek ba ci caméraman yi na ñëpp ànd doo ba sànni yan ñu ñaan yàlla mu fay ñoolaa ji maali ba kullu maali ba kullu maali

damay gàmmu ca jàmboor ga ca gannaaw daara jolof ma ni yéen bu ñu demoon ba yomal xiyaam suñu borom ni yéen waa Sénégal li ngeen ma jaamu lépp nangu ma ko taxawi leen ne leen daal mi kenn rek laa nangul bu yàlla di dama joxe misaal daal fay li mu lëggéey moom maam Maodo ba pare ni ko seetal ku la neex nga séddu ko ma ne ma laaj maa ne mën nañoo seetlu ñun ñëpp ñu dem àjjana te du jeex. gars yi dama foo ko teg ma ne xoolal benn way wi maa arxadar raxbu ba mu déparé. alhamdulilahi zil ijaadi wal xidami mumittina bi wujudil badri zil qadami summa salatu wa taslimun yaququ ala miskin wa randin ala dil fadli wal qadami wa alihi المعتدين الخيرة الكرماء المؤتمي سيرة المختار والقدم ما أرحد الرعد والورقاء تنحب من هدي لها illa wa jara damun min alqalami xool benn way wii rek bu ko yàlla nangoo defal ma salaatu wa salaam mu ne ko noo ko bëggee noo ko bëggee jàllo yàlla boo ko ñàkkati yàlla bu leen ko ñàkkati jigéen ñi moo moo dafa mel ni suñu borom da ko ni si noo bëggee salaatu wa salaam bi mu ne ko maa arada rahdu yàlla bu leen ko ñàkkati maa ngi daanee sax waaw way wii rek laay firi maa arxana raam déggal waay wi déggal saa yoo ne saa bu dënu déedéet déedéet danga naan maa arxana raam saa bu bëri ba nee gërëm rën jullil ma ci yonent bi maa arxana raam saa boo déggee dënu mu ne dënu dënu jullil ma ci yonent bi lu toll noonu maa arxana raam ma ne borom tamaji sax borom tamaji saa bu déggee mooy daal saa bu soow jubee boo déggee soow rek yow yàlla jëlal ma ci rasulillah wala bay lekk ceeb sax naan toppam toppam toppam jooju alaaji Maalik nee na fekk loolu di am déema jullit ci rasulillah wal war xaa un tayl aybu min agar agar mu ne ko julil ma ci rasulillahi fee pettax muy aji dunqu wala mag ñi daan ko firee pettaxum bool feet muy jooy ab cuujam dee loolu kañ lay jëf xoolal xoolal soo yoree bi tax sa kër boo bi tax mi naan waxutu waxutu alaaji maa ngi la loolu noonu fekk nga koy dégg lay doon salaatu wa salaam ci rasulillahi Yaga. وجرى تبع من القلب ديدت ديكاتك من ماما لاج مالك خلا باينا من ديدت ديدت ديدت ماما لاج مالك ني بندكات بي يوري داس مالك يالا بولن كو ñakat fek muy jël xalima am di capp ci daal di bind fek loolu di am ci yore imprimante muy jël furi bi borom ordinateur fekk muy jël suul bi di dóor julli ko ci Rasulullah ki yor clavier fekk mu bëgg a bind di dóor ca teebaat aaba del julli ci Rasulullah wajara damul minal kalam mais lii kañ lay jeex moo tax ma ni Alaaji bu ko yàlla tegoon nële fay ko waxuma xilaas bi yëpp benn way bii rek bu ko yàlla nangulee fay ko ko ma ni bu ñu amul dara dara dara mën naa séddu ku ne nga dem aljana ko moom bu jeexal مولي وكل ما لقريش دبة دبة هبة شدة حية حنة مضاعفنا mooy ci li doori wa kullu maa li quraysh dabba bi rek da nga naan wa kullu maa dabba lépp loo xam ni rek mu ngi dukkat فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير suñu borom Seydina Maam Seydina Malick ne lépp loo xam ne daal mu ngi ko gën te yàlla nee na am na loo xam ne muy dox biir lay doxe ni ci jaam yi am na loo xam ne ñaari tànk lay doxe comme ni sa ganaar am na lu doxe ñeenti tànk comme xar bay ñoom seen alaaji Malick ne te ba ñu ëmbee rasulillahi ak ma ñu ko ëmbee mam si daal di Malick radiyallahu taala anhu nee na lépp luy dukkate Quraysh moo ko na taxat tudd na tudd ko leer bi xam li xayri ibadillahi ci ëmb bi ci gën ci jaam yàlla ñu rasul sallallahu alayhi wa sallam kooku dañ ko mën a ko dépp mbay yi sax da ngay dugg ñu naan oh mais خير عباد الله كلهم waaw waaw waaw jërëjëf tafsir yàlla yàlla yaa leen gàmm bi bu laajee ma doon bëy damay doon bëy bu laajee ma doon ganaar ma doon ganaar ma maa di maa di demal deuxième bayit ba mu fekke déwén waa famille Baye Alxaaji Ahmadou Gaye yal na leen yàlla fayal mooy seen ndaw waaye gàmmu bi dama ko ni gàmmu bi li tax man ma neex leen mooy am na gàmmu yoo xam ne xam taalibe la lu temps bi gën di dem rek naan bi lu temps bi ma naan tey baax na ndax bu gàmmu bi desee semaine la ma seex di woo saay saay saay fole fole fole fole moom ma ma nekkee Thiès ma ne ko am ma ne yoonu Dakar mu ma da ngay ñëw Dakar ma ne ko am sa saasa laay gis di ñëw waaw ba ba ñëwee wax ba ñëwee ma ne ko am bu ma ñëwee moom waxatul ma da ngay ñëw rek mu jël enveloppe loxo gàmmu bu jëm semaine du nekk bi avance ba enveloppe ba du avance de gorobal 100 pour cent lekk naa سيد الرزق خاتم الأنبياء ñooñu ñaan maam Seydi Hadji Malick ne te la ba ñoom bee yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faxdarat naat na al ardu suuf si yëpp wa in talaahu alifun wa laam faksin maam Alaaji Malick jëfandikoo grammaire bi ni faxdaratil ardu وإن تناو ألف واللام فاكسر وقل ليقم الغلام ليقم الغلام لا نفي محل جسم لا الأجمال فاخترت الأرض لا مجمد كوغرامي فاخترت الأرض والأشجار قد حملت فسمي العام عام الفتح والرفع ما مولودي تنبي أمي ينشال محمد أرض بلفنا واو واو dafa mel ni dañu kasoone àdduna bépp benn àll bi lëndëm kërit wala asjaaru xat xadat yi nga xam ni daawuñu meññ sax yépp a meññ sëf ba diis banaana bu góor cere dafa meññ banaana bu jigéen cere dafa meññ même jigéen ñi amul woon borom kër cere dañoo am borom kër ñi nga xam bi ñu ëmbee yonente bi ak moom jigéen ñëpp sëy ñu ma ta sëy ñu nekkoon ci biir sëy te amuñu doom yàlla da leen a xéewale ñu ëmb ca at mooma am doom ngir lan xéewal rasulullah maanaam dinaa leen ba nga xamee ne àdduna bi naat na garab yëpp mel ni summiya li zalika summiya al aamu tudde nañu ak moom amal fàtte ak mu ubbeeku ndax lépp a dox war rafet ak naataange lépp a naat seen góor ga Cheikh El Hadj Abdoulaye Moussa rek. ma daaneel way wi ni kooku nag nga xam ni moom la ñu ëmb adduna du mel noonu maam abdu ne pourquoi pas ba du mel noonu te moom muy sangu yonent yi moom rasulillah sayyidu rusli xaatimul anbiyaa trois cent treize yàlla yoon ni sayyidina muhammad maam abdu ne na mooy seen sang قطب الله ثبت الأسبياء شيخ الحاج عبد الرحمن الدباخ نينا موم لا يلا تن موم رسول الله سيد المرسلين موي سمون يلا يوني موم رسول الله هد البرايا موي جبل من جيف موم باي فاطمة سيد الله موم لا يلا جرم موم رسول الله يا الزهراء Hadrati Dabakh nee na sama waa ji mooy way juru Fatimatu Zahra atumul baabu lil ibaadi ila Allah maam Abdu nee na yow rasulillahi yaay bunt bi yóbbu jaam yi ci yàlla jami al haqq bil istifnaa'i mboolem jaam yi ku jëm ci yàlla ci yow lay jaar yaay bunt bi yow rasulillahi Touba فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين اجاما قسم دباخ يالا بوكو نياكتي سي بارك رسول الله خفكم بالكتاب خير فلاي سيدنا بشيخ الخليفه بربنا كاربا فيرنا كما جوخي كادوغي خاطبوا جميع الأنبياء déggal Serigne Babacar Sy damay faral di wax ni léegi la rek léegi la xarit bay bay daa mel ni dafa dox Serigne Sidi Ahmed maa ngi lay nuyu si di la jéggal bu baax si Malick si Serigne Babacar ñu ngi lay nuyu mais bi ñuy wër xalifa bi kër góor bu ana xalifa bi ah man de maa ngi saa waaye fii amul xalifa de moom rek képp dong xalifatu maa fay ne samaat wal am xalifatu maa wul bi aay wa maa wul abaay ndox yi naax booba moo ne leen xalifa ñu ne xalifa kenn la ci àddina mooy doomi maam ba fay njaay jaak moom alaaji xalifatu sëb si diini خدمه جميع الأنبياء شيخ الخليفة سيدنا محمد بن عاص من قدمه جيت لكم جميع الأنبياء مولم يلا صلاة الرزق ذاك الأضحياء حسبي يلا يوم جيت لكم وين غير مملني ومم رسول الله لما درج من تباهي قالما قالما دفع ملني ñu daal di président day ñëw daaru ga ban heure lay ñëw ban heure lay ñëw mu ngi ñëw quinze heures boo yeewoo sept heures loolu lay def yenn ci ay génie ñoom boo demee ba quatorze heures quatorze heures trente mais yeeg ministres yeeg généraux yi génn pourtant sax ba treize heures nga gis benn oto ci digg bi ay motaar dara ko góor dara ko tuwaat ne ci kanam ne ci gannaaw ambulance ca kanam ambulance ci gannaaw nga dégg vraiment faible kooku lañ doon xaar sëriñ Babacar Sy ne cent vingt quatre mille ñoom ñoom ñëpp ay garaate lañu waaye dañ doon xajjal loolu Seydina Mouhamad yàlla ñu fekk ñëwen ñu ngi ñaanal suñu sëriñ sëriñ Hadji Malick Sy Maodo yàlla yàlla yokk wéram yàlla yàlla yokk wéram sëriñ Maodo yàlla fi yàgg lool ci ànd ak wér macha allah dafa fonk Cheikh Kay waxuma li waaye ci sëriñ Maodo si yàlla moo ko ñàkkati waxuma li mu doon goroom déedéet waaye ngir lan daf li mu doon ko tabaarakallaahu daf koy pàkk pourtant damay tëj seen si moo tax ma ko tëj kàddu bi te jigéen ñi boo leen toppee doo tëj ndax ku topp ko am bi am jëli kat bu ko topp doo kàttan say wax ma daanee rek ci sëñ Maodo ah si sëñ Jabi ñu jàngal li tax nit ñi xam ni ñu ñaanal ba pare ñu def seen xaalis. moo tax nit ñi Maam Alaaji Maalik dafa yomb de. bon. taalibe yi ñoo bëgg lu yomb de. sëriñ boo xam ne du la rootloo du la bayloo du la fóotloo bu ñëwee gën laa xam ni la waxal nit ñi xam ba pare la mu yor mu koy jël bi la ko jox. waaw. waaw sax yàlla moo ko ñàkk ma ni Serigne Maodo dafa fonk gàmmu waxuma ngir Serigne ak taalibe déedéet taxawal ah, dina ma wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh